tey marché bi nag li ko waral mooy ñun jeune Tivaouane yi CCJ ànd ak collectif Tivaouane Debout ñoo jug di dox doxu ñaxtu mais marche pacifique ndax dañ ñi li tax marche pacifique Tivaouane mooy dëkk boo xam ne dëkku Seex Seydil Hadji Malick la suñu waxee ba daaneel wala ñu jëf ba daaneel te maam Maodo feeñu ji dootuñu tudd noonu looloo tax li tax ñu jug nag mooy hôpital bii ñu janool muy hôpital maam Abdoul Aziz Dabakh hôpital bi dafa am ay problème dama waxtaan ak fii ñenn ñu ne l'hôpital est malade man leen waa yéen opital bii nga xam ni ñi feebar bu ñu feebaree fii la ñu war a faju see bu feebaree ñun fan la ñuy fajoo hôpital bi nag feebar na ta feebar mi ngi bëgg a yàgg ñu taxaw fi ne hôpital bi feebar na ñu jël directeur bi fi nekkoon affecté jël saf bi affecté ba léegi ñu ne hôpital bi dafa feebar ñu jëw indi fi matériel de maintenance ñu ne toujours hôpital bi dafa feebar ñun nak ñu ni lan moo tax ñu ni il paraît que l'hôpital est endetté dafa am boru téeméeri million ak ñett té lolu nak fek mi ngi fi nekk buñ ñu lon matériel ya nekk Washington sax du tax hôpital bi saafaraw il faut que dañuy wax le président de la république mom lañuy waxal waxu ñok ministre waxu ñok député waxu ñok kenn dañuy wax le président de la république c'est lui le père de la nation ñu koy wax ni dañuy bëgg une subvention exceptionnelle bu gaaw ngir lan hôpital bi nga xam ñii di sëtu Seydil Hadji Malick ku ci tawat fi ngay faju see man mii di wax mën naa tawat léegi fi laa war a ñëw yow ak keneen ak keneen hôpital bi bari nañu fi ñàkk seen bakkan ci ay manque d'oxygène manque de sang amu fi ñu taxaw hôpital boo xamante ni dafa jaadu hôpitalu Tivaouane bi ñu def ko niveau deux hôpital boo xam ne mi ngi liggéey liggéeyu niveau de te niveau un lañ ko def te dama ni Seydil Hadji Malick nag lebal na réew mi lu jar opitalam président moo waroon na feebaree à l'extérieur à l'extérieur du pays ñu indi ko ci biir Tivaouane ni fii la ñu yaakaar ne fi day fajoo kon hôpital bi lan moo tax nag ñu taxaw suñu kilifa yi def nañ li ñu war a def mais nous les jeunes dañuy def li ñu war a def li ñu war a def mooy wàcc ci terrain bi te boo gisee Serigne Babacar la mu waxoon dañuy ndawi kese wóorul magi kese wóorul ñu ni ko Seydil Hadji Sëñ kër lu wóor mu ni mag ak ndaw ànd mag ñi di xalaatal ndaw ñi mag ñaa ngi ni ndaw ñi di jëfe moo tax tey lu ñuy wax mooy dañoo bëgg hôpital bi dafa am nag yu fi ne yoo xam ne dañoo bëgg président mu jël ci ay matukaayam mooy matériel yi ñu fii indi ñu koy jaay nañ ci wax indi matériel ñu jël hôpital bi ñu fi affecté war a loger à l'extérieur de l'hôpital ñu dëkk ci biir hôpital bi yor fi juróomi frigo di fi jaay glace yooyu c'est pas normal ñu indi fi ay matériel ñu jël matériel di jël di ko di ko jaay di ko jaay di jaay matériel yi

beneen bi mooy xale bu fi juddu sa noyyi gaaw am naa sama benn xarit du ma tudd turam da fi indi jarbaatam jarbaat bi am doom xale bi di noyyi noyyi bu gaaw mu ni leen xale bi noyyi bi ñu ni ko dañ ko war a yóbbu Thiès parce que oxygène amu fi mu ni leen bindal leen ma ta jox ma ambulance bi mu yóbbu ma Thiès ñu ni ko ambulance bi du yóbbu liir loolu mooy lan liir du nit il faut qu'on se la vérité lii la ñu koy demander le président Macky Sall di ko wax ni Tivaouane jug xalé yi jug nañu mag ñi jug nañu di wax ni nañu ñew ñu saytul ñu problème mu hôpital bi entière waxu ñu kenn rek waxu ñu matériel ñi fi liggéey ak directeur yeeg ñi mën a ñëw ñëpp nañ ko liggéey. je pense né waral li waral marché bi dox ñaxtu bi mo koy né ndaw ñi dëkkee Tivaouane amuñu dul hôpital bi té buñ fébéro fii la fajo ci ñu am ne melokaan mi hôpital bi mel jéggi dayo té doyna war motax ndaw ñi sol seen dàll amuñu parti pris amuñu parti politique coléré wuñu kenn faruñoo kenn wala contre ñu kenn li ñuy dox dox ñaxtu bi mooy que ñu indil ñu ci hôpital bi nga xam ne nii moo nekk ci Tivaouane Tivaouane département bu ëmb 18 communes la te boo xoolee Tivaouane ni mu yaato wax ma la lu óodal laa sax yaakaar Tivaouane ci àdduna kenn ne a fajoo si kon bu ñëwee te fekk fi lu adéquat pour faju je pense que ne loolu problème lay posé wu ci ñun ndawi Tivaouane ñu ne nag loolu day dakk day jeex comme président de la république rek moo mën a saafara suñu jàngoro ñu tàllal ko suñu loxo ñun ndaw ñi conseil communal de la jeunesse ànd ak collectif bu ñuy wax Tivaouane Debout ak ndawi Tivaouane yëpp ngir mu mën a xam ne ndaw ñi am nañ naqar ak tiis ci dëkk bi ñu nekk te loolu warul am fii biir Tivaouane hôpital bi niveau bi mu nekk niveau un la boobu ba léegi ñu ngi koy joytu li ñu gën a intéressé te ñu hôpital ñu defal ñu ko niveau deux ndaxte loolu mooy tax hôpital bi gën situation nekk Tivaouane dépassé na bi li muy dund Tivaouane dund tey li may bëgg wax tamit nit ñu xam ko mooy que ne il faut ñu ñëw gérer gestion hôpital bi mais emuñ ci loolu kese nañ ñëw xoolañ hôpital bi seetal ñu ko ngir nit bu fi ñëwee indi lu mu mën a saafarawu ñu mën ko ko saafaraal ci anam ñu mu aween ñu vraiment nag di wax tamit ne bi ñuy waxee wala ñu ciow gis nañu déplacer nañ ay matériel indi ñu ko gis nañu ko jëkkanti wuñ nak mais gis nañ matériel ñu fi andil mais ñu lu dañu ñu woon satisfaire ñu woon mars bi liko waral mooy dañ ko jàppoon pour fukki fan ak juróom ak réew mi ñaan ñu ñu soir ko biñ ko ko surseoiree gis nañu avancement am na mais des na comme nag des na dañuy jooytu pour lépp complété wu li ñaan président de la république daal mooy Macky Sall hôpital bi niveau 1 bi mu nek nañu ko dinil defal ñu ko officiellement niveau 2 loolu la ndaw ñi di ñaan tu Tivaouane vie d'un moment sombre et sur ce par rapport à l'état chaotique de l'hôpital Mam Abdul Aziz Siddabah de Tuawan. Qui dit Tuawan dit ville de lumière, mais sans lumière. Nous décrions sur ce la mauvaise gestion de l'hôpital Mam Abdul Aziz Siddabah sur tous les plans. Nous réclamons une subvention exceptionnelle et dans les plus brefs délais pour régler les dettes et donner un nouveau souffle à l'hôpital Mam Abdul Aziz Dabar. Nous demandons aussi l'audit technique de fond en comble et financier de la gestion de l'hôpital Mam Abdul Aziz Dabar. Surtout relever le niveau 1 à un niveau 2 pour soulager les populations de Tuaon. Tuan est le chef-lieu de département. Il coiffe 18 communes. Donc c'est pas normal, un hôpital de niveau 1 à Tuaon. La jeunesse, les populations de Tuaon en ont marre de cette situation.